mënuloon ñàkk ñëw wane itam suñu sant yàlla ndax lépp looy def rekk jiital ci sant yàlla moom la soob ñu doon bëgg di ko ñaan ñëpp di ko ñaan ba mu may ñu kon nañ ko sant lenn rek mooy yóbbal bi yan bu diis ngi yan nañu la ko su li ci jàng bëri Euh, du lu yomb waaye yàlla li may wax toujours kum nar ta fay du la liggéeyloo ñeme ko te am sa yéene sa pas li ci des yàllaa ko moom benn ki dañ ko laaj lan mooy réussite mu ne réussite du am li nga bëggoon mais réussite mooy def li nga war a def li nga waroon def def nga ko ñi ànd ak yow def nañ ko yàlla moo des nag ci réussite bi waaye amal pas-pas que yàlla moo ne maa koy jox nit ku ko ñàkk maa la koy xañ kon nga xam ne mbubb mi bu la ko solalee rek bàyyil xel ne dina ko summi solal ko keneen ak xaw ma kañ lay doon kenn xamu waaye boo bàyyee xel loolu liggéey bi yàlla mën na la ci gunge yàlla la yàlla gunge yéen bi yàlla na ko yàlla woyefal yàlla rek moo ko mën a woyefal ah, te nga wéral ci ne rek yàllaa la ko jox te kenn mënula ko xañ na ku yàlla wéral ci loolu loolu mooy gàllaaj gi gën a rëy wéral ne yàlla moo la ko jox te nit mënu la koo xañ ku dul yàlla soo ko defee rek yàlla incha allah dina la gunge ci liggéey bi boole ci nag julli yëpp seen yaakaar ñu ëmb ko jox la ko yaakaar boobu soo góorgóor yàlla du ko tas mukk yàlla du ko tas yàlla bu ko yàlla tas yaakaar bi yàlla bu tas yàlla na la jig yàlla na la jig nga jig ñu ñu jig la parce que jigante rek lay doon ndax dimbalante la ñëpp jàpp ci ku nekk di xalaat lu baax di ko wax di ko def waaw li ci des ñu bàyyee ko yàlla jërëjëf commune Colobane maa ngi nuyu mbooloo mi fi toog ñëpp euh, ñi kilifa yi ci biir ñi ngi wàcce kaamil comme ni ñu ko defee woon ca njëlbeen ga dañuy tàmbali dañoo woo imaamu commune bi woo kilifa commune bi ñu ñëw wàcce fi kaamil ñaanal ñu ñaan jàmm ci campagne électorale bi yàlla def na def nañ ko ci jàmm ba campagne bi jeex soow amul euh, def nañu élection ñaanoon nañ yàlla yàlla may ñu ndam yàlla may nañu ndam kon lan moo des ñu dem liggéeyi xëy na balaa ngay liggéeyi da nga feetu ndax ku kontaan man ngaa am nga sañ-sañ wane sa kontaante waaye message bii may yëkkati message bu sant la d'abord di leen sant yéen ñëpp ci taxawaay bi ndax kenn ku si nekk benn carte nga seen benn carte yooyu moom lañu ñu boole benn benn benn benn ba tey ñu euh, gagné fi largement ci biir commune bi ak ci biir département kon dañ leen di jaajëfal yéen ñëpp bu loolu rombee bu jaajëfal bi rombee nga xam ne ñëpp lañ ko boole damay woote jàmm woote aussi sérénité maanaam ñu ànd xel xel suñu xel fi mu ne li fi nekk mënoo ne da gañe yàlla dafa ànd ak ñun ndax ba ñuy uti ku nekk di ut képp ku doon uti pour nga am la woon mais ndam yàllaa koy joxe yàlla ñun la ko jox ñun ñu ngi ko jox nag bu ñu ko jox bu ñu jox ba pare féetoo ak ñun nga ne ñun danañ defal suñu bopp wala dinaa xorñoñal kenn wala dinaa dóor kenn wala dinaa yàq alalu kenn pour lan nañu arrêté loolu ndax démb informé nañ na ne am na ay ndaw yoo xam ne dañoo jóg dem di attaque ñi nga xam ne suñuy adversaire lañ woon adversaire jeex na fii amatu fi adversaire dama bëgg loolu ñëpp ñëpp ñëpp bàyyee ko seen xel man amatuma adversaire fii ci Colobane yàlla mooy dogal te yàlla dogal na maire de Colobane actuellement s'appelle Amath Diop parce que loolu loi moo ko wax ku gagné résultat définitif la ñuy xaar waaye résultat provisoire dara du ko dindi li fi li dañ leen a dóor dóor yu métti métti waaw mais nit ki doone dinaa la dóor ba pare na di bañ na du jooy loolu mën naa ne mais bàyyi leen leen ñu jooy bu ñu jooyee ñu fomp seeni rongañ dafa leen tàllal leen loxo ñu àndandoo liggéey looloy dëgg waaye vraiment man d'accorduma surtout ndaw bi d'accorduma ngeen di dem di yàqal kenn d'accorduma ngeen di xorñoñol kenn d'accorduma ci nañu waxante dëgg nañu feetu suñu feet bu ba bu ñu paree ci wàcce kaamil bi bëggee leen taxaw leen fii ñii tànn béer tànn béer leen ñii fecc fecc leen ñii musik musik leen ñii sikkar sikkar leen mais loolu moo di am solo mais daal vraiment bëgguma benn histoire ku leen tooñ baal leen ko baal leen ko nañu àndandoo liggéey ñoom aussi ñeneen ñi nga xam ne aussi dañ leen a gañe ñi ànd ak Ousmane Wade ñi ànd ak keneen ak kum ci man di doon ñoo ngi leen di woowaat ci jàmm ci calme dañu xam ne yàlla moo dogal lii yàlla dogal na ko si ñun nañu dal te xam ne euh, Colobane ñoo ko bokk victoire bi génn Colobane kër goo dem wala boo kër yu ci ëpp da fa fekk ku àndoon ak Ousmane Wade fekk fa ku ànd ak Amath Diop force danañ bokk añ di bokk reer kon loolu ñu ko bokkee nañ ko bokkee waat ci jàmm ak salaam kàddu yooyu laa ma koon a bëgg a yëkkati di xamal nag ne li si des mooy incha allah bu ñu jógee fii dañuy daal di nekk ci liggéey parce que mbir mi doonu di feetu rek dafa am programme bu ñu tegal askan wi te programme boobu benn bi ma ci jëkkati bi ka ci euh, gën a teg dafa jot dafa laale ak wàllu jàmm bi mooy inclusion sociale solidaire maanaam ñu bokk ndey bokk baay pour que ñu mën a liggéey Colobane Colobane ñu ko liggéey bu fekkente ne xol yi jubóowuñ gis ngeen li nga li ñu tardé loon bu fekkente ne looloo nar a continuer duñ dem fenn je ne suis doonuma ab messi dafa am loo xam ne mbooloo moo koy def doomu Colobane yi ñoo koy def doomu Colobane yépp bu ñu jógee dañuy réussir te dañoo jàpp ne dañoo réussir la ñu tar tardé lool suñu mag ñi dañoo njëkk a judd waaye ëpp ñum xel maanaam euh, fii nii xale bi li mu tuuti tuuti kii ma jàkkaarloon maa ko mag njëkk judd rek laa ko def point am xel jote ak loolu dara waaw comme ñoom nag fa ñu jaaroon am na lu ñu bëggoon mënewuñ ñun xam nañ la ñu bloqué waaw léegi lu ñu bloqué nañ ko teg fële li ñuy avancé loo mooy ñu àndandoo di yëkkatindoo di tegandoo. waaw waaw. loolu daal laa ne woon dinaa ko yëkkati. waaw xam nga dama ne programme d'urgence bi bokk na ci programme bi euh, l'inclusion sociale la gis nga loolu euh, Sidi moo ñu gën a soxal ñun dañoo war a juboo d'abord nañu juboo ci kër yi nañu juboo koñ yi ju juboo dëkk bi juboo village juboo askan wi juboo ci suñu biir ci boppam léeg-léeg nga gis des familles yoo xam ne instant yi nii du ñu laalante te loolu feeg dindi wuñ ko duñ jàll donc parallèlement la ñuy def li ñuy def maanaam wàllu jubóo googu premier acte yi ñuy posé ci loolu lay bokk waaye accès yi ñu waxoon également les quatre accès universels yi nga xam ne dañ ko tënk ci suñu programme muy wàllu ndox muy wàllu courant muy wàllu santé muy wàllu éducation loolu priorité la ci suñu incha allahu la ñu tàmbale woon ci ndox mi danañ ko àngal àggale lu keneen tàmbali woon ci ndox mi danañ ko àggale courant yi lu ñu tàmbali woon danañ ko àggale lu keneen tàmbali woon danañ ko àggale waaw non xam nga fi mu ne installé gu ñu ne mënuñu woon ah wa installation ba rek waaw pour le moment nañu bëggee waaw léegi installation bi ba tey bu naan naat jërë ngeen jëf jërë ngeen